génne police ak gendarmerie si ay ñoo xam ne ay civil lañu ne dañuy dem toog ñaxtu kooku dafa nekk lu jéggi dayo donc lu ëpp la armée balaa ñu ko génne day fekk situation am dara xewul loolu dañu dem toog place de l'Indépendance nga ne na nga génne armée di armée bi boo ko génne foo ko jëmale si peuple bi te ku ne xam na ne soldat fetaleer yorul grenade lacrymogène yorul leneen kon dama ne nguur gi nañu yem